بالحق المبين من كونه ليبين على الكتاب بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عونك يا معين وبك نستعين بركة الشيخ الخديم mbokki jullit yi ñuy seetaan ci yoon wi nga xamante ne nii di yoonu yu ñuy tuddee internet eh, ci yoon wi nga xamante ni ñu ngi ko duppee Jazbul Murid fii ci Italie ci Touba Mestre ñu toog fii ci jataayu ci ëtt benn ci ëtt këri sëriñ Touba yi ci mel ni mbokkum taalibe yi ñuy wax Cheikh Mouhamadou Bachir Seck di fi waxtaane tey tomb bu am solo ci mbir mu am solo ci jamono ji am solo ju ko laaj lool mu am laaj bu mu laaj ci xew-xew bi nga xamante ne moom la àddina bépp dëgmal ñu xew-xew bu am solo ci àddina bi waxuma ma jullit ñi waaye àddina bi laay wax ñu boole seen xew-xew boobu di màggal gi nga xamante ni nii moo dëgmal ci ji jamono ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru muharram di weeru tamxarit weer woo xamante mooy weeru jullit ñi ndax mooy dooru euh, histoire dëgg-dëgg histoire dëgg-dëgg taarix boo xamante ni ci la jullit ñi jël ñoom seeni yoon di ci sukkandiku seeni tegtal ci seen dund ñenn ñi di ko wax ne mooy weeru mooy weeru wàllu yi ndax yonent yu bari alayhim salaam saa borom am na lu ci jëflante ñoom ci weer wi ak wàllu yu bare bare bari bokk ci nag Cheikhul Khadim Khadim Moustapha mi nga xamante ne ni moo waral tomb boobu jóg magal gi ñu bëgg ci am tuuti lu ñu xamle ne tuuti nañ sax ci xam ci dara ñun ba ci xamle waaye ci gëstu rek li nga xamante ne jot nañ ko ci di ko dégg ci mag ñi jàngee ko itam ci téere yi dégloo ko itam ci nettalikat yi ci waxtaankat yi ak waajur yi ak ci ëtt yi ñu bëgg ci rek wax solo si lu koy sabab ak lu ko waral ak nuñ ko mën a jariñoo ci solo moo di mu mel ni murid yi yu seen Tuubaa yi am na ñaari gisi màggal yu ñuy wax di ko tudd ko màggal ñenn ñi tax di jàpp ne màggal gu mag gi la ñuy wax ak gu njëkk gi ak gu mujj gi waaye gii nga xamante ne nii ñu bare bari taxul ñu jàppee ko màggal gu mag na ñu xam ne mooy màggal bi gën a mag ci màggal yi ndax màggal yi màggal gi lu tax mu nekk màggal gu mag moo di ki ko waral mu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Mustafaa dana daan wax ci waxam bokk na ca lenn ci ay muy wax sama borom di ko ñaan naan ko bis bi nga xamante ni moom laa gën a bëgg ci samay bis la ma ca bëgg mooy muy bis bi may daj ak yow maa ngi la cay ñaan muy bis bi gën ci samay bis gën gëm lam ci jublu nag mooy lépp lu mu wut ci yàlla ak Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi taxoon ñu tuddee ko xaadimu rasul lépp lu mu dënu ci ñaari jëmm yooyee daa bëgg bis bi dajeeg sama borom ko ci bis boobee daje nag moo di dogal bi sama borom di dogal ci doomu aadama ju mës a bind daf la jox bakkan ci sa jëmm joojee daf ca wax muy dund bis bu dana mës ñëw sama borom jël dogalam ba xam ne bindaat na ko ci biir denjaleel ko bakkan boobu mooy kullu nafsin moo mawti ku yàlla san borom mos a wàccee jamono loolee dana la mos sa dab mu bokk ci li dab sëriñ bi keroog eh, keroog joojee buñ koy wax mooy bis bii tey kon eh, kon nafsin zaa'iqatul mawt nag kon mel na ne mooy dajeeg sama borom gi mu war a dajeeg sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kon loolu la sama borom dogal muy nangu ñaanu sëriñ bi lam daan ñaan moom sëriñ bi ci boromam kon bis bi mooy bisub màggal gu mag gi màggal gi mag gi mooy demuk sëriñ bi ca diwaan wi sama borom ya maanaam ca barsaqi Muhammad ya alayhi salaatu wasalaam su ko defee kon loolu lañuy la a xam xamle tuuti rek ab tomb ci ni ñu koy jariñoo ak ni ñu koy màggalee ak ki ko màggal ba tax ñu koy roy ci moom di ko màggal ndax war nañoo yiiraat bu baax a baax njàngat mi ci xam-xam yi ndax ñu bare bari ci jamono ci ñeneenti jullit ñi danañ wax ne loolu xamante ne nii yonent bi sallallahu alayhi indiwu ko fi dañ daan wax naan bokkul ci sunna waaye jëf ju baax joo mës a gis rek ñu def ko ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ñu def ko ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dolle ko dundug yonent bi alayhi salatu wasallam loolee mënees na ko boole ci sunna kon màggal ku baax màggal ku tedd màggal ku yàlla màggal kon loolu mën naa dellu ci sunna su ko defee kon ki ñuy xamle moo di Serigne Touba Xadimu Rasul li nga xamante ne nii mooy xawsul waraal jëmm ji la jox xamante ni sama borom andi woon na ko ci biir gaañ yi eh, di ca dellu di wax mooy kan ragal naa ne fi mu toll nii nii nopp bu nga xamante ne nii sama borom def na ci yow nga war a dégg lu baax dégg nga sëñ tubaab bu baax a baax a baax xel mu yàlla sama borom tam jàpp. ne def na mu xel moom war nekk xel muy xalaat lu baax ragal naa ne sama xel war naa mën a daj seen tubaab xol bu yàlla yi itam war am wàcc wàccuwaay ba man faa am moo ëpp cër ragal naa ne xol boobu war naa mën a nangu kan mooy seen Touba kon du jar ñuy dellu dëgg dëgg dëgg dëgg di dellu ci sëñ Touba di ko jàngalewaat waaye tey li ci ëpp solo ñu ko war a jàng ci sëñ bi mooy moom ni mu màggee ni mu day ca yàlla. bay àgg ci di ñaan sama borom bis bi nga xamante ni ca lay dajeeg moom mu defal ko ko bis yi gën ci bisam kon am na lu mu xam ne ku jóge fii ci kër gii ñu nekk fa nga war a jëm mbir nga fay doon moo xamante ni mbir la moo war a waaj mbir la a faggu mbir la moo war a bàyyi xel la tey ngir ëllëg joojee ñi xamante ni du jaas na ko ñàkk soo defee kon liy solo si dëgg-dëgg solo si mooy sëriñ bi foofu mi ñu fi jàngal ñu loo xam war nañ ko fee roy ci moom moom xadim Moustapha ci ne doomu aadama ju mën a doon ci ne ak foo mën a doon ak foo mën a bokk ak noo mën a doon rek war ngaa bàyyi gis bi nga xamante ne nii àlla ku leexal ko day ak sa borom ngir ne kat bis boobu moom su xasee ak si moom yàlla dana la téye téye ko xam ne dootu la nga mën a dellu fenn te lépp loo xamante ne doxoon sa digg moom da ngeen ko def xi dana dana xisaabu dox sa digg moom mooy dana régler jëf joojee ba nga xamante ne nii dana ko teg ca nam ko bëggee woon yàlla nag yàlla na dëppoo ak su boobaa mu fekk ne yow la mu bëggoon ca yow la mu bëggoon ciy dogalam yaa nga ca jaar nga ca ba tax na isaab ga du am solo maanaam isaab ga jaza rek moo ci tegu eh, su ko defee foofu kon lu am solo loo xamante ni tomb la bu ñu war a jàngat foofu ci dundu sëriñ Touba kan moo di Serigne Touba nag dañ naan mooy jëwriñu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam buñ la wax ne jëwriñu yonent bi sallallahu alayhi wa rek nga nag. doy nga sëkk sëkk sëkk sëkk am njàng doy nga sëkk sëkk ku ñu war a wax doy nga sëkk sëkk ku ñu war a xam hmm. ndax ku toll ne Muhammad sallallahu alayhi amul kenn ku ñuy toftal ci moom ku dul xaadimam tur woowu ku ñu ko jox garab la boo xamante ne nii ci àddina beneen garab mënatu koo dab beneen garab mënatu koo jege beneen garab mënatu ne mel kon jooju jëm moom am na jenn la fi woon dootu fi jaar dootu fi amal foofu ñu déggaat fi leneen ne bisa ngi ba nga xamante ne nii kon bis booba de su dikkee sunna dund na waaye alxuraan itam dund na ndax sëñ Tuubaa ginnaaw bi mu nekk xaadimu rasul ba noppi sëriñ Tuubaa sunna la ak alxuraan sëriñ Tuubaa sunna la ak alxuraan moo di sëriñ bi rasulullahi képp la ne woon dann jaar ko ci alxuraanul këriñ jëm ca yàlla ànd ak Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu nekkal fi yàlla nekk goo xam ne dootuñu fi jógee ba mukk nag seen nekk googee tam ci ñaar rek la mooy la yàlla bëggoon ñu nekk ca yàlla bañoon mosuñu caa jaar waaye bëggu ci tam kenn ku ca jaar rawatina nag ku dub jullit waaye sëñ Tuubaa moom képp ko moom da ngaa moom mu dox sa digg ak Rasulullah sallallahu kon boo dee yaa ngi am nii lu bis rëy rëy rëy ci àddina lu bis màgg màgg màgg màgg ci àddina lu waxtu màgg màgg màgg màgg ci àddina bisub sëñ Tuubaa gi ñuy boobu moo moo gën a màgg ci yow murit bi atum sëñ Tuubaa bi moo gën a màgg ci yow murit bi weeru sëñ Tuubaa bi màgg ci yow murit bi waaye bisub sëñ Tuubaa bi nag waxtu wacca sëñ Tuubaa wàccoon moom moo gën a màgg yow ci yaw murit bi yow kon nga xam ne yow lépp loo war a am yow lépp loo bëgg ci sëñ Tuubaa lépp loo am ci sëñ Tuubaa na la wóor na bis bi moom nanga war na ko fonk ndax la la sëñ Tuubaa di jox moom ci bis bi la ko amee moom ki nga xamante ne nag moo lay récompenser nag waxtu wañ koy récompenser moom jamono ji nga xamante ni ca la ko defee ca la liggéey ba liggéey ba wàcc ñu jox ko ca dañ ko jox te loolu ñu koy jox moom bu noppee yow ca la lay joxaat yow day moom lu mu ko fonk fonk moom yow yaa ko war a gën a fonk yow nga xamante ni ci barke bi rek ngay dund yow kon nooy fonk fonkale Sëñ Tuubaa moom bisam bii mooy alxuraan nga fonk ku baax fonk itam xësaa yi dem yi nga xamante ni lépp ci alxuraan la la ko génneewaat muy njariñ tey di njariñ ëllëg su boobaa day na la wóor yow am nga taxe àddina am nga taxe àlla xam ne am nga ngërëmu sëñ tubaa kon am nga ngërëmu rasulullah te am nga ngërëmul yàlla kon kii mooy sëñ lenn nag ci sëñ tubaa sax nag laa am ndax sëñ dëgg-dëgg moom duñ mënu gun cee dugg sax nag bay xam sëñ tubaa waaye li ñuy jariñoo màggal gi moo di màggal gi kañ la naka la ak fan la kañ la moo di fukkeelu fan ak juróom-ñeenti fan ci tamxarit fan la moo di tubaa gi nga xamante ni moo nekkoon xemmem te fu sëñ Touba àddina ak alaxira sa sama ko def dogal nag cat dal ko ci ba li mu koy bëgg bëgg bëgg bëgg gàllankoor na ko ba lam ca bëggoon dëgg-dëgg ci dundam ci saa yi defu ko ca ndax mënu ko ca woon ndax dogal bu dogaloon lii mu am tey ab liggéey bu ko gàllankooroon diggam ak àddina diggam muy àddina bu ñu ko wax ne mooy diggam ak nasaraan bi doxoon ci ba sama borom dogal ñu gàllankoor ko ba Touba googee mënu ci woon nekk mënu ci woon a yàgg lam ci jot a ba mu ko génnee itam duggaatu fa ba dellusiwaat ci dellusi yi nga xamante ni tey moo waral bis bii waaye nag am na ko na mu ko bëggee ndax li am na ko na mu ko bëggee moo di lam ca namoon lépp lépp sama borom dogal na ko ci ndax yàlla sama borom dogal na mu jox ko jëmm ñoo xamante ni mu di taawam mu Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké radiyallahu taala anhu moom mi nga xam moo njëkk a nekk xalifatub Cheikhul Khadim ci kaw suuf defal na ko ca li Sëñ Tuubaa lépp ci dëkk boobee ndax defal na ko ca li ca njëkk mooy indi na ko ci moom mu ñëw dëkk fa ba faw wuti dootu fi jot defaral na ko ci ndigub yàlla bi nga xamante ne nii ma ngi ko jotee woon ci ndigalu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ca Tuubaa Daaru Xudoos mu defar ko ko ba mel na mu ko bëggee woon te dootu fa jóg ba ba àjjana defar na itam moom Cheikh Modou Moussa mi ñu bëgg a wax njabootu Sëñ Tuubaa gi nga xam Sëñ Tuubaa am na ko moom bàyyi ko fi mu jiitu ci seen kanam muy doom muy mbokk muy mbokkum taalibe Sëriñ Tuubaa dogal na Cheikh Modou Moustapha lépp lu ci Sëñ Tuubaa bëggoon def na ko ci moom Cheikh Modou dëkk yi nga xam itam sëñ tubaa dogal na mu am ca ay ay dogal ak i bëgg-bëgg lu ca lu ci bëggoon lu ne rek Cheikh Modou Moussa defal na ko ci te moo ne day li ci gën a metti nag gën ca jaaxle day gën ci yéeme mooy Cheikh Modou Moussa mooy kan ndax Cheikh Modou Moussa de mooy kan faaw boo gë boo déggee ma ko mooy ngir leeral Cheikh Modou Moussa mooy kii def lii day jamono ji mu koy def ki mu ko doon defal muy sëñ Tuubaa ku ne xam na ne day ci loxo yi dañ ki mën ne ko mooy loxo yi nasaraan